waaw Babacar maa ngi lay nuyu sant ban gis-gis laa am ci dikku président de la république di ko rafetlu bu baax comme ni mu fi dikkee rek daa ko fi dikkee dikkin bi dafa mel ni dafa gën a ala daw parce que dafa ñëw mel na ni indaale na sërica mooy ñëw na indaale hôpital bu nga xam ne dañoo wax ne niveau 3 la bu dee suñu Afrique yi yaakaar naa moo fi nekkagun kon loolu damay sant bu baax président di ko rafetlu di siyaare sëñ Muntaxa tamit mi nga xam ne defal na ko ko mu sant ko gërëm ko euh, daal di yokk cofeelam digganteem ak moom loolu man dama koy rafetlu di ci sant bu baax rek. waaw xam nga Baye la dafa yëngu wala yëngootut lii rek moo la mën a firndeel li Baye la mi ngi yëngu ba tey parce que président Macky Sall dafa dafa màggal si comme li may wax rek gouvernement am na renseignement toujours xam na ñi koy yëngul xam na ñi koy ndax président bi mu ñikkee xam na ñi koy yëngul tax geesu nañu ci màggal gi. bi mu ñu geesee askan bi nga xam ne moo tax mu jox na ko ñi ngi nii yaay seera si mu dañoo fas yéene lim ñu jox ñu jottali leen ko parce que yaakaar na bu ñëpp doon def ni ñu def lu ñu leen jox président jox leen ko pour askan wi ñu fexe ba muy jël ci askan wi saa bu ñu demee ci ay ñu naan danañ perte ak duñ perte ñun loolu dañoo bëgg mu jeex fi waaw dañoo bëgg mu jeex fi responsable yi li ñu leen di jox nañ koy jottali ñi leen koy joxloo. xam nga bët nag li bëgg a xool rek lay xool li mu bëggut a xool ko mën a xool. parce que bëgg Macky Sall ku ko ku ko bëgg a war nga koo mën a xool bu baax ngir ngir sëñ a afa am lu ko sëñ Mountakha waxoon ni ko li ngay fexe ba li ngay def nga di ko def ngir sëñ Touba yaakaar naa nag ndigal loolu ci lay wéy ñun nag dañuy fexe bay sàcc ndigal xam ne sëñ Mountakha mi am na lu mu bëgg ci sëñ Macky Sall ñu fas ko ci yéene jàppale rek ba nga xam ni saa bu sëñ Mountakha amee lu mu bëgg te nga xam ni askan wee tax muy sonn loola mu am ko bi ma ci am xam nga ñun dañoo bëgg a dëkk ci ndigal yar ak teggin tamit ci la ñuy doxee doxin kooku ñuy dox ci yar ak teggin nag comme que dañoo wax ne Covid bi am na sëñ bi ne bëgg na ñu ubbi hôpital bi ci yar ak teggin te bañ tamit feebar bi nga xam ne moom moo nekk ci réew mi law ñu teeru ko ci yar ak teggin kenn ku ne sol sa col gu rafet dikk yar ànd ak yar ak teggin ñu teeru ko mu xam ne ñun ñi am nañ cofeel ci moom loolu moo tax tamit ñu defee ni ko sëñ bi bëggee rek dëgg la nag li liy nax ma saal ci dëkk bi ñun loolu tamit dañoo bëgg toujours mu di ko moytu nit ku jóge ca àll ba rek ngir ñëw bëgg wane mbooloom ñëw wane mbooloom joxe lu nga xam ni dana tax ñu ànd ak moom teeru xam nga kuy teeru ak ki nga xam ne dafa nekk toog di defanteek aw askatam dafa bokkut ak ki nga xam ne day ñëw rek am lu mu bëgg a fésal fésal ko dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañoo bëgg ñi ni defanteel ñu des fi parce que bu ñu waree dem ci ñi ñoo ñooñu lan fiy desal ñooñu ñi fiy desal nag dañoo bëgg toujours mu bàyyi xel ci ni ñii ñun dañ ñoo leen amee te ñoo leen war di toppatoo mu nu bàyyi xel ci ñooñu man gis-gis bi ma ci am en tant que politicien wàllu nawet la suñ borom tamit moo moo yor ndox parce que bu ñaanoon mu bañ a taw ngir màggal gi tam te borom baykat yi tamit di ñaan yàlla ndox mu ñëw yaakaar naa day yaar mbir yu daje daal xëy na ñiy màggal bëgguñu mu taw ñiy bay itam dañoo bëgg mu taw. assainissement nag man li ma ci doon wax rek laa ci wax ba tey yaakaar naa tëli rek moo war a jiitu assainissement ab dëkk nag lu luñ luñ ko bëgg a bëgg a te amul tëli boo bayee ba noor tamit boo bàyyiwaatee rek yaakaar naa suuf si dugg ci biir moo koy sakkaat. kon mbir la mu nga xam ni yaakaar naa tali rek moo koy jiitu lu fi waaye man di def daal da nga cee war a jiital tali boo tëlee ba pare doog cee boole assainissement. xam nga état moom lu muy def Babacar lu ne lu ne da koy waajal sëñ Mountakha mi jëloon yëfam sax doon ko dimbalee ñu jaarale ko ci état gis nga ni xaw na yeex parce que état moom bëggul bëggul làmbatu rek di tañaxu parce que dafa bëgg lu muy def lu ne mu teg ko ci transparence transparence boobu nag mooy lii yaakaar naa li ma defee ni woon moo doon ci gën a gaaw nun ñi nga xam ne maîtrise nañ dëkk bi miin nan ko am na lu fi miin ndax ñi taale am na ci ñun dañuy ñëw ci ñun di ñu laaj sama kër gi nangam sama kër gi nangam bu fekkee da nga nekk militant jiite ay mbooloo suñ la ca boole itam say militant dañuy ñëw ci yow ne ma ah man kat sama kër ga dafa taa su fekkee waxuñu la ci dara wala dimbali ci mooy gis nga ko rek comme nii li ngi koy jéem pour suñuy militant génn ci biir dox mi mais taxul nag kenn dañu ci soññi dañu ci defloo dara mais dañ ñu cee war di defloo parce que dañ ñu fee bàyyi ñu dox seen diggante ak askan bi kon toujours suñu amee lu nga xam ne ci askan wi la jëm te ñu xam ne xam nañ askan bi war nañu ci laaj suñu xalaat waaw mat naa ci seere parce que ayok sëñ Fallou bi ñuy Fallou Senghor yaakaar naa dafa gu fi woon dara Ablaye Wade ay diggé rek la defal li ñu doon jot def ci ndox mu manqué yooyu yaakaar naa ci loxol Macky Sall mi la jaaroon a rëy def samp ko moom moo ko fi def kon yaakaar naa dafa jëf nit ñi nag dafay mel ni dañuy dañuy xool nit am am luñ koy bañee mais su fekkente ni dañ koo bañ tam sëñ Muntaxa mi nga bëgg mi nga xam ne moo ko bëgg te nga xam ne moo fi sëñ Tuubaa te wax na ne bu fekkente ni àndu ñoom moom it dina ko ñaanal ci sëriñ Tuubaa boole na ko sëriñ Tuubaa yaakaar naa mi ngi fedd li moom cofeelam ci këram li ma xam ci murit nag lañ ci daan xam mooy dafa war di dàkk ndigal xool li sëriñam bëgg mu fas ko yéenee bëgg ci sëñ bi bëgg na ko ñun foofu rek la ñuy tënk suñu bëgg te fas nañ ci ànd ak moom ba dernier xam nga ñi fi ñi fi woote woo ay responsable dañ koy woote woote lu ñu ko parce que tamit ay responsable bu fekkee da nga jëm ci ay ay ay ay élection te toujours dañuy yëkkati somb nga xam ne am na solo ni la jox ko askan wi nga ñëw nag dellu tëdd ci sa kër yor ko di ko màggale gisoo askan wi gisuñu ci seen bopp mooy taxaw askan wi saa boo taxawee soxla leen tamit foo leen bëgg a yóbbu doo leen fa mën a yóbbu ñun daal ni ñuy def ni mooy nii lu ñu jox te askan wi tax dan tax danañ fexe ba askan bi di ci jot ñoom ñëpp nag maa ngi leen ci soññ bëgguma daal toujours ñuy dëkk ci ay élection di jàkkaarloo ñoo xam ne ay opposant la ñu naan opposant bee gagné loolu dafee war a jeex te li ko fi jëlee mooy président moo war a xool ñi nga xam ne war nañ ko mën a liggéeyal suñ ko liggéeyalee mu am li bëgg mu liggéeyloo leen social ak baale moom yow yaay seere si mooy comme nii rek baale lu lu tàpp ci loxoom te nga xam ne war na ni gis na ni keneen ku ci loru ah du ko téye di ko fanaanoo day fexe ba kii mu lijjanti ko baale du ubu du fay téléphone loolu waa dëkk bi ñoo man ñoo mat seere ci man du ma ubbu du fay sama téléphone te yaakaar naa du ma gis tamit nit ku nga xam ni war naa ko mën a dimbali te lim may wax nekk ci sama loxo ma di ko ko ba a jox kon social man dama koo doon dama koo fas yéene continuer eh, li ma ci man te yàlla tax rek fas naa yéene di ko def waaw xam nga lii nu nekk nii moo am jafe-jafe parce que politique see ci boppam moo sonn parce que bëggul kenn ku ko mere bëgg na toujours askan wi ñëwee ci ñoom kenn ku ne li muy def nga gis ci sa bopp askan wi nag ñoo war a mën a am seen matuk bopp xam ni kii lim li li mu lii muy joxe nii daf koo bëgg a joxe par kër transparence kër gu ne kenn ku ne nga gis ci sa bopp kon nag ñoom ñoo war a xam ni lii ñuy joxe askan wee tax kon suñu fexee ba kër gu ne dara dugg ko rek daf leen a loola war leen a doy ñu xam ni yaakaar naa li ñu leen jox kenn ku ci ne boo ko dugalee sa kër te fas yéenee màggal dana sori ci sa màggal. tamit maa ngi ci sant waa commune Tadal di ci sant nag sëñ Mountakha bu baax. te dëkk bi nag comme li ma ko wax rek li ma waxoon ci ginnaaw mooy ku jóge ci àll ba bëgg koo defar bëgg a romb ñi nga xam ne ñoo fi dëkk itam du sotti parce que ñun dañoo xaw a judd ci ñàkk ndox ba xam xam xam ndox mi ni muy doxee parce que ndox mi itam li li koy gën a tardeel dëgg-dëgg bokk na ci ñu jób màggal courant di coupé parce que forage yi dañuy wax rek moteur yi mën na koo doxal mën na koo doxal mais li ci war dëgg mënu ko yaakaar naa dëgg-dëgg loolu la courant bu xasee coupé moteur bi pour mu doxati pour mu sarte du ci yomb leneen li ci des li ma gis lu nga xam ne remarqué nañ ko dëkk bi day bëgg a yàggate day bëgg a yaatu forage yi ko wër bëriwut leneen li ci des mooy jaayam ndox mi ñuy jax ay maawu raxmaat yooyu dañoo war tamit bu màggal gi jubatee ñu arrêté parce que solo képp ku nga xam ne da ngaa bëgg ndox dafa nga war a dem ba génn bi nga installé di roñ di indi di jaay mais li nekk ci dëkk bi il faut ñu bàyyi koog waa dëkk bi mu mën a dugg ci teew yi nit ñi di ci gis seen bopp leneen la ci des yaakaar naa gis naa ci saa bopp man li ma xam ni bokk na ci li ma xam ne feek mu ngi am ndox du mën a doy ni mu war a doyee ndox dama am base sama morom am ko keneen am ko mor ko su xas ndox xasee manqué mu ngi mel ni euh, tiwo bi bu amul air amul ngelaw amul ndox bu jógatee ki xas am wan am bassin ndox mi dutu ko romb ñii root saa bu ñu xëyatee rek foofu la ñu jublu yaakaar naa ba loolu bokk na ci ñu war lu ñu war a dimbalante ku tu ku duy ba am dara rek nga tëj sa wan bu ko defee ñaa ñëm ñëm àggagut war a mën a àggale mais en tant que ndox mi mi ngi mi ngi mi ngi xel ci barab nit ñi di ko fa fekk ndox mi duutu gaaw a yegg leneen li ci màggal gi bu xasee engagé liy ñëw ciy saret xam nga ni ciy fas dëkkatuñu woon ci dëkk bi li li li lii ñëw pour màggal si forage yi du leen mën a attan lii ñëw ci jur gu ñu war a jaay nag yeeg yooyu di leen wëgg ñu war leen a jaay après ñu war leen a fees war leen a toppatoo loolu xajul ci xajul ci euh, ndoxum dëkk bi kon yaakaar naa ndox moom pour màggal mu mat na mu war a matee du yomb coow li bari na mais nit ñi li ñu war a def sëñ bi dafa am kum samp muy maa war a mati li ñuy def ci ay Tuubaa ca kanam yooyu bu ñu ko defoon jàppale ko maa war a mati mu def li war a def yaakaar naa euh, coow lu bari dana wàññiku waaw xam nga loolu loolu loolu xam nga dina jafe mooy comme li ma wax rek boo gisee toujours ñu war nañoo mën a ñàkk élection yi mooy nit ñi ci boppam xëy na am nañ ci man ñeewte ndax toujours li ëpp ci doomu aadama yi muy yow muy sa morom li ñu may wax mooy bàyyi la yow bu doon yow a yow de bu ñu la jiitaloon wala kon yaakaar naa li Macky Sall di ñàkk dootu ko ñàkk kon jot naa ne bu ñëpp jotoon ñu def ni man taxaw lu ñu leen jox comme ni ma ko waxee woon rek ñu di ko jàllale ci seen seenu askan euh, li ñu bëgg danañ ko am comme ni ma wax ni nag ni ma taxawee nii defe naa président moo taxaw moo am lu mu fi def li mu fi def it bëgg naa koo fisal ba ñëpp jot ci li ma koy wan nag mooy lii bu ñëpp defee ni man rek bu ñu eggee ci li nga soxla ni nga ko bëggee di nga ko ne am man loolu moom ci laa nekk leneen li ci des comme li nga ma laaj jot nañu defal ma yaakaar naa bu ci sama wërsëg nekkee rek du yàggatul war naa mën a jëw